ma njëkk laa wax weeru koor yoolam ak dara jaam soog xamal besam bur yàlla ne bind na am malaayika ma aras day woor bëccëgu woor guddi ga bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخير خديمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi ñuy topp ci site bi di Refane TV seen mbokk dongo bu xeebu te ñàkk solo ñu koy wax Saliou Dione moo leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu ak di leen baal di ñaan suñu borom yal na nu boole jégal ci barke sëriñ Touba. di ñaanal bu baax a baax seex Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak ak wer ba li mu bëgg a liggéeyal maamam mu liggéeyal ko ko na mu ko bëggee te mu ànd kooku moom. tey jii ñu fas yéene andi naafile gi nga xam ne moom la Cheikh Soxay bu wax ne moom lañuy naafe la ci guddig ñetteel ga guddig ñetteel gi nag ni ma koy waxe mooy boo wooree ñaari fan. bu ngoon jot guddi googu mooy guddeeg ñetteel guddeeg ñetteel nag liñ ciy naafila mooy juróom benn rakka moom lañ ciy naafila rakka bu ci ne nga jang ci faatiha benn yoon ak inna ansalnaahu ak xul yaa ñeenti yoon juróom benn rakka bu ci ne faatiha benn yoon inna ansalnaahu ak xul yaa ayyuhal kaafiroon lu ci ne ñeenti yoon naafila googu itam naafila gu mag la naafila gu baree baree bari tiyaabo ndax sëriñ bi nee na képp koo xam ne naafila nga naafila googu mel nga ni ku goreel junniy jaam mel nga ni ku jox ndoggu junni yu woor kenn nit ku woor nag ku ko jox ndogu rekk am nga tiyaabooy woor weer wi yépp rawat ku jox ndogu junni yu woor mel nga itam ku wodd junni yu raf junni yu rafle am nit ku rafle ba amul lu mu sol nga wodd ko ba ñuy junni nit mel nga ni ku def loolu mhm. mel nga ni tam kulle junni ñu xiif maanaam junni nit ñu xiif ba amuñu lu ñu lekk nga jox leen ñu lekk ba suur mhm. nee itam des na la bindal tiyaa bu ju toll ni limbub njanaaw yépp maanaam picc yi naaw ci jow ji ni ñu toll suñu borom dana la bindal tiyaa bu ju tol noonee mhm. kon loolu itam lu lu lu lu lu lu lu jara lu jara góorgóorlu la mhm, lu jara góorgóorlu la waaw nee àdduna yépp itam des na ko ci defal li ñuy defal jaami yàlla yu baax yi maanaam li ñuy defal jaamu yàlla yu baax yi des na la ko defal mhm. ak li nga xam ne def na ko defal ñi dee ci xere maanaam ñi dee ci xere tiyaabu ñi ñu ciy amee boo naafilaa bés boobu yow itam suñu borom dina la ko ci defal ak yeneen yu baree bare sax ci ay ngeneel yoo xam ne nekk na ci ak i njëriñ yoo xam ne boo toppeetee rek sañ soxay bu rek dinga nga ko di nga ko jot waaye daanaka yiñ ci wax rek ombaale na sax yi des bu ko defee nag kon ni ñu koy faral di soññee rek ginnaaw bu ñu àndee naafile gi mooy ñu bañ a sank sunu jamono ni ma koy faral di waxee gën góor góorgóorlu fu ñu tollu ci jaamu yàlla gën a góorgóorlu fu ñu toll ci tuub gën a góor góorlu ci delluwaat ci suñu borom subhaanahu wa taala xam ne loolu bu nu ko defee rek sunu àdduna dina jàgg suñu alaaxira dana jàgg xam ngeen ni jamono yi ñu tollu jamonoy nettu la ak jamonoy tiis ak jamonoy balaa loolu ñëpp xam nañu ko muy lu daj àdduna gépp waaye nan jàpp ne nettu yi ak balaa yi sori gu ñu sori suñu boroom ak ñàkk gu ñu ko ñàkk jaamu ak moy gu ñu koy moy rek moo waral suñu borom dinu nettu kon mel na ne ñun ñëpp bu ñu maasee ci góor góorlu ci jaamu yàlla maase ci tuub maase ci jéglu maase ci saraxe su boobaa suñu borom dana teggi balaa yi waaye danañu defal sax ay xiiwal dana teggi balaa yi ba pare sotti ci suñu kaw ay xiiwal kon nag weeru koor yi nañu ko dundale ci tuub ak jaamu yàlla su boobaa loolu mën naa dem sax ba suñuy jafe-jafe yépp mu saafaral ñu ko fii jamono toll muy lu mel ni coronavirus bi ñuy dégg ci àdduna mbootum weeru koor wi ak bu ñëpp maasé ci jaamu yàlla ak sabbaal suñu borom ak tuubal ko mën naa def ba suñu borom teggi jafe-jafe yépp yépp li ñ doon ragal ci ay jafe-jafey koom ak yooyu yépp suñu borom mën nañu koo tegil te am na ay xiwal yu yaatoo yaatu yàlla nañu ko defal nag ci barke weeru koor wi kon ñu fatliwaat leen naa fel ak tey gi muy guddeeg ñetteel gi juróom benn raka lay doon raka bu ci nekk nga jang ci fatiha benn yoon jàng ci ina ansalnaahu ak xul yaa ayyuhal kaafiroon ñeenti yoon boo ko defee bari na tiyaabu lool bari na tiyaabu lool suñu borom rek moo xam li ci li ci nekk ci tiyaabu daanaka liñ la ci wax ci ay tiyaabu sax am na lu ko am na lu ci lu ko ëpp loo xam ne mu ne su ko bind ci ay teere te ci sëñ bi jot a juñ jot a juñ rek mel nga ni ku goreel junniy jaam goreel junniy jaam nag tiyaabum kenn xamut nu mu toll mel nga ni ko jox ndogu junniy woor jox ndogu junni yu woor nag kenn xamul nu mu toll ko suñu borom ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon ñu góorgóorlu ci bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ma njëkk laa wax weeru koor yoolam ba ak darajaam soog xamal besam bur yàlla ne bind am malaayika ma nga aras day woor bëccëg woor gu ga